ADD le casse-tête de Macky Abdoulaye Daouda Diallo eh dem nañu ba Abdoulaye Daouda Diallo Macky Sall daa dem seeti nijaayam nijaayu Abdoulaye Daouda Diallo ni yaayu Abdoulaye Daouda Diallo dem wax ak Abdoulaye Daouda Diallo ndax nag li muy waaj suba lay conférence de presse non ah mais mais yow li muy waaj bu amee bun xëcc fële maam booy jaw xëcc fële te nee naa leen ngeen sóor Abdoulaye Diouf saar dina wax ak keneen ak keneen non bu ku nekk xëccee la mu am ci ay nit astut Macky Sall nekkul candidat Abdoulaye Diallo Daouda Diallo dompat tout bun Abdoulaye dompat Ali Nguy Ndiaye dompat Mam Boy Diaw dompat li ci dess ci pourcent du bari de sans compter ñi xamni amuñu fitu wax mais dañuy vote sanction déggoo ma de Pape maa la wax am na ñoo xam ne te ñooñoo gën a dangereux mooy ñi ne cell mel ni ku boq fekk dañu nar a vote sanction xam nga lu ñuy gere seen six mois salaire yi di ñëw nga ne Macky Sall su ma dotofloo fii ba mu dàq ma six mois yii damay nekk chômeur te loolu wuur li ma dencoon sax mun na jeex deuxièmement mun na yow topp ma waaw ah, man su ma toppee man duma ma am problème man ah aha ah, très bien acca acca ñu dem ñu dem acca ñu dem acca ñu dem acca ñu dem ci beneen yéene kaay ñu dem ci beneen yéene kaay non rombal bii rombal bii waaw la dépêche nee nañu sëñ bu mag bii lu mu defati ah sëñ Muntaxa Bachir lu mu defati ah yowoo ko maa mii ñi ñii moom ñii ñoom dañoo xamul dara mais xaar ma jox la xibaar bi ñii laa dépêche ñoom ñoo war a arrêté mais ana titre bi ana une bi yow wan ma une bi mais sëñ mu mag bi lu mu defati waaw mane mane xam nga titre bii yow du journal bi du photo bi ngay jaay ndax sëñ bi moom jaay na boppam ba pare ma jàngal yéen ñi yore yéen yore waa dépêche yéen ma jàngal leen journalisme du foto bi mooy jaay information bi mooy jaay sëñ bi defati na milinam yëkkati na cent millions dimbalee ko waa Maroc ci jéye bi nekk nii fu mu nekk nii ana xibaar bi tegaat ko waaw lii journal la eh journal bi ki ko moom naa ko woo ci kanam patron bi laa wax de wax ma ñiy bind de ma ne ko dàqal ñii <laughs> pap tey naa créé somer ndax ki moom journal bi xam naa ko patron ah dinaa ko woo ma ne ko dàqal journaliste yi xamuñu dara yaa ngi yàq sa xaalis dégg wala ma baal leen pap pap moo bëri yërmande nee na baal yow ma jox ma beneen yéene kaay <laughs> Pape ne na baal leen parole aux parents des victimes de manif ki nga man témoin li ñu def tey daf ma neex mooy fël feneen mais parent victime u manif yi mais anuñu ñi ñàkk seen doom ñi seen doom am ay gaañu gaañu ci manifestation yi fi amoon anuñu yéen kaay bi nag dem seeti seen parent yi waxtaan ak ñoom vraiment témoin xawma ma kañ de mais tey moom kontaan naa si yéen non parce que man man damaa xaw bizarre aussi mun naa leen tàccu tey suba ma ñëw attaqué leen ngeen ne non booy bi n'est pas man man damay yër yéene kaay bi xool lu normal ak lu normalu dem fii rek laa wàññi observateur ci benn point point d'interrogation kese ma wàññi leen fii ah wax leen ay dëgg te keroog tàccu naa leen fii dégg nga ji wax jël naa fi les échos néeg lii mooy journal ñeneen ñi si des ñëpp ñu bind yëpp te ay pinton lañ yaa ngi dégg keroog jël naa fi le point actu ne leen li ngeen tiitre ndaa naan ngeen mang koy fatale ku legui ba tay lundi bi passé titre point acte bi mo fi toj ndax loolu moy résumé situation bi Amadou Ba s'impose à Macky Sall <laughs> suba nak sumu len xasse tamit buñu mer rek voilà pap il faut être sportif ñun ñun Algérie moo ñu mën ah. ñoo mun Égypte mais Algérie moo ñu mën fu ñu fekk dóor ñu benn 1-0 nañ nangu rek voilà très bien aca ñu dem ñu dem ñu dem Amadou Ba jéngu na def na interview soleil la ko def mais li ma si jaaxal mooy ñiy jënd soleil ñoo bëriwul Euh, kii Pape mosoo gis nit nii si mbedd nii muy lire soleil yi ci bureau yi rek lay nekk mais nit nii mun nga ko romb muy lire observateur romb kenn muy lire populaire mais mbedd bi noonu mais kon Amadou Ba ñan lay waxal interview bii dafa waroon def ak beneen journal mais soleil nag nañ ma jéggal de ñu ngi def liggéey bu rafet mais ñoom ñoom ñoom ñoo doyatul sénégalais bu yàgg ba xam la la jaay ma soleil même sa journal bu amee tur beneen tur soleil lañ ko doon wooyee ndax soleil fi nekkoon mais soleil nag nekkatu fii de soleil est-ce que mu ngi jar à part abonnement wu gouvernement est-ce que soleil mu ngi jar ah waaw dama si keneen grand ya xam nak mo fa nek sama grand la waye est-ce que ngi jar et le quotidien la série continue le quotidien ak dekk bi nu muy bax baxé mu nañu bâtiment wat na golf <laughs> quotidien ñoo bari caaxaan rombal